benn <laughs> sàcc la woon. sàcc sàcc la woon sàcc ñu sàcc ko. sàcc. ñu sàcc ko. waaw nuñ ko sàccee. waaw ah, daa doon sàcc teg bagage am yi. waaw ah. di dem di sàcc di xool am lu doon jël si bagage am fekk mu sàcc bagage am bu tournaat li mu doon sàcc ñu sàcc ko. mu ñu sàcc lim sàcc. waaw li lim sàccoon moom. moom sàcc loolu lañ sàccaat. ay ay exem. <laughs> amoo beneen. man. Hmm. ñuy xalaat. mais bu bëccëg la de est-ce doo samp bant. xam nga lebal la muus bi. muus bi waaw. ah ba ah ayca. lebal muus la woon. Hmm. ba ba faal ëpp tege jërëm la muus ñëw lekk ko ba faal def benn pièce teg ko noonu muus bi ñëw jël jën bi rek. kii la daal di képp kii bi geen bi. geen bi waaw. ba fab teeku di ko wëndeel di ko wëndeel ba xale bu réew di ko fay kii doo ko def nii da nga koy dóor si miir bi muus ne wëndeel ma man. <laughs> xam nga ne wëndeel ma gën a tedd. <laughs> man dama lay léebal. Hmm. Euh, benn xale la woon. bu tudd. almaa bi. léegi nag xale bi tase ak benn saaru demi meer meer yooyu ah mu bëgg ko lool yow <laughs> est-ce xam nga ni dama laa bëgg la dama laa def comme sama doom bu ma su ko lépp lu xew si sama dund damay bëgg ñu waxtaanee ko ndax hmm. yow rek laa am hmm. dafa am lu xew ci kër gi nag ma hmm. bëggoon yow nga comprendre xam fi ñu jëm dafa am benn waay mu ñëw ci biir kër gi ñu def ma soxla comme jabar te xool naa ko bu baax xam naa kanda xam naa nit ku baax la nit ku am diine la tamit nit ki aussi bala ngay dugg ci moom il faut nga xam loolu waaye tamit yow nga xamante ni yaay sama doom te damaa bëgg lépp lu may dugg nga xam ko ma lay laaj luy sa xalaat hmm. ah. bëgg nga kooku nekk sama borom kër bëgg naa kay ok waa mais yaa awa ci loo ne namm naa la eh, waaw mais yaaw yow sa reetaat eh yaa xaa siin nga ne siin mais yow foo ne réew mi ci àdduna bi foo ne dafa luñ la invité ah Casa lañ Casamance Casamance si am. ah parce que Casa Casablanca bu ko ne fële Maroc. macha allah mais yaa ngi noos de. ah mais kër gaa ngi wéet ndeysaan. wóor na yow rek xoolal maa ngi nii di di nii man kase maa fi nekk nii maay boroom kër gi fi mu toll mbay gisaguma ko. ngóone mbaay gisaguma ko. ma ni gisaguma mbay gisaguma ngoone mbaay. gisaguma kenn ñoom ñi ngi ci seen i néeg tëju. mais oui ma reetaanaat ma reetaanaat. waaye wóor na yàlla ñoo la raw ñoo la raw yow xam na ay ñaata mois ngay def foofu ñaata mois ngay def foofu. ma ne. Eh, yow man kam moo may woo ni xamul ni man damaa nekk ci fi discussion bu neex. Marina mu ngi fi moom mi ngi fële si ci ci néeg bi xaw ma tey lu ko dal xaw ma faram da koo mere xaw ma qu'est-ce qui se ngi tëju yow ndeysaan ah, sol yére boo xam ne mi ngi ko bënn fii daal jumbux bi lépp di mi ngi ca ko saf mais wuy ma ma entourage bi foofu mbedd meek yooyu ma xool wan ma mbedd mi entourage bi xam nga kër yi affaire yeeg yooyu man ne nga wan ma li xew ci mbedd meeg yooyu kër gi ma xam ma xool décor beeg yooyu. Eh, kaay kaay kaay kaay. bii eh, lan la nii. laa ilaha illallah. lii lépp yaa ko. yaawa de mi ngi ci farantu gu méttee métti. ça va. ça va kii naar ah, eh, la. xataa man li xay si. yow dafa nii nga xool kii. waaw waaw yow mi dem naa la de. waaye booy dem doo tàggoo. waaw. eh Saint-Valentin day waaj a ñëw nag may indi robe rouge noir dégg yow doo bàyyi bëggante kenn bëggu ngay uti rouge noir di feesal décor. rouge noir dégg nga robe. valentin bañ koy wax yow taxoo. day waaj a ñëw. Ah, man xam nga loo may amoo foofu eh, xaritu naar bu disponible naar. xale yu waaw baax après kii ni nga bëgg jigéen. Ah, après dinaa la woowaat dégg yow coupel kii. yow nga jigéen de ngay naa. Ah, léegi su ma bëggul jigéen nan laay bëgg góor ak fi réew mi waaye nag balaa boobu almaami. Mm. dama bëgg. Mm. nga jàppale ma bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw jéem a xam boobu ba tey. xam nga koy wax boobu ba tey maa ngi ciy dox di ko di recherche mais mënumaa xam fan la il faut ma xam sa yaay ak sa papa parce que ni nga nekkee ci man du yoon man dama laa bëgg rek waaye juruma la tax nit ki soo ko yoree mu nekk sa kër danga war a xam kan mooy yaayam ak kan mooy papaam. amoo fenn xalaat foo xamante ni mën nga ma faa jox repère wala benn numéro téléphone boo yore wala quelque comme ça boo xamante ni mën na maa yóbbu ma mën a xam réellement ñan ñooy say waajur wala su fekkent ne est-ce que yow am nga repère encore parce que loolu so bëgg naa ko xam loolu su ma ko xamee nag du tax du tee yow nga nekk ci man man dinaa la adopté dinaa la téye nga am may sa yaay nga am <laughs> papa yaa ngi comprendre donc mais il faut ma ma ma xam bu baax. dañ ma dañ ma sànni ni ma ni ma ni ma foon daal xam naa fi dëkk waaye mosuma gis sama yaay mosuma gis sama papa yoroon xam nga nu tudd. waaw. nu tudd. Ndeye Marie Diagne. Ndeye Marie Diagne. waaw. ci loo nekk. non maa ngi daw bàyyi yaa ci jàmm alhamdulilah wuy ma damaa ñëwaat de ci ci ci ci boobu mën a doon laajte noonu seen foofu xamoo fa fenn ku fa tudd Ndeye Marie Diagne waa jëkkëram xaw ma ko de jëkkëram nu mu tudd. Fall. Hmm? Ablaye Fall. Ablaye Fall la jëkkër ji tudd waa. déedéet kay lu leen jëlee foofu oh waa baax na waaw dinaa la woowaat incha allah que xam nga ni ñi la yaroon foofu nekkatuñ fa. nekkatuñ fa. déedéet. waaw. borom kër gi moo ñëw génn leen kër gi parce que amuñu luñ fay. déggoon nañu ko waxtaanee. dama laa koy waxee fan laay waree waat ah, man de kaaw xale bi jaaxal na ma torop torop sax ba pare en plus yow am na loo xam ne gars yi dañ la koy tere ci kër gi nit da xam sa bopp xam ni nga mel yow boo doxee baatare dégagé da nga yëngal réew mi <laughs> booy dox del def tengam tengam def ndànk xam nga loolu moo ëpp solo mais di dox di di baatare ci biir kër gi mën nga fi indi coow loo xam ne nii man sama baatare daa xaj ci kër gi mais yaa ngi koy def. sama ah, baatara xaju ci kër gi de. naa xamoo ne viole yu bari yi ci réew mi ah yi am ci dëkk bi nga yaakaar ni yéen jigéen ñi yéen a koy provoqué. yow loo ma woowee. mais si parce que baatare bi nga baatare du yoon booy dem ci waañ wi xam ni góor a ngi ci saal bi da ngay xool ni ngay doxee. Hmm, kon góor a ngi ci xamoo ni góor a ngi ci saal bi. abo ah bon. Hmm. sama baatare la dese yow. mais ni nga baatee nii. ba wax viol koy violé ma. exemple laa lay jox dama ni ñu bëri ñi ngi leen di violé fekk ñoom ñoo violé seen bopp ndax da ngay fekk góor goo xam ne nii mu ngi toog xamoo dafa dal xamoo lu ban problème la am nga romb ko def dégagement batterie bu doy waar boo xam ne nii la ko yëkkati ba mu song la du ko tey. Hmm. yaa ngi dégg loolu il faut nga ci veiller. wax nga dëgg. voilà loolu. surtout ko ku jéem xam. toujours. ah sa papa jox la ko. nga xam ko. bii ñoo fekk la. allo. waaw. naka mu. ça va bien alhamdulilah naka tey. dana si ki ma la daan wax am naa ba pare après ma wàll ok. waaw. yaa ngi si jàmm. yow nga nekk sama papa. <laughs> taf taf lan si ngoon. ah taf. waaw kay te nga fi ñëw ngi indaale bu ma banaan ak pomme. te ngaa wax indaale sama téléphone dama si biti xaar ma ñëw. waaw ci lan nga nekk. li ma la mën li ma la bëgg a wax mënuma la ko wax ci kanamu xale bi yow comment ça fait yow waa ah, nga dégg ni ma nekkee lépp xale bi réer fu nekk dugg naa fa lu nekk def naa ko jëloo sa temps sax nga jël sa temps boo woo ma benn appel benn appel du tax loolu danga ni danga bëgg a nekk sama jëkkër mais xanaa appel aussi tamit appel appel du la empêcher def te def dara. non non man kay yow rek laay déglu. waa léegi déglu ma déglu ma wax la déglu ma wax la man laa la wax sësuma ci kenn suma ci kenn. nga ñëw wax ak man ma d'accord ak yow loolu au moins ma yaakaar ne am naa wéeruwaay su ma amee problème yow yaa si mën a taxaw mais comment ça ka que ma am sama problème gisuma la dégguma la loolu tamit neexul neexul tamit neexul de baal naa la waaw baal naa la non dama lay wax rek man moom lu ma naqari dama la koy wax après jeex na man dangaa bari doole nag. xoolal yow waxal loolu loolu kese nga may doy. yow ah li ma bëggoon a wax Ngoné mbaay xam nga yow tey boo ñëwee ci kër gi c'est grâce à Ngoné Mbaye. loolu waaw Ngoné Mbaye sa xarit la sa doomu ndey la. Mm-hmm. Euh, te nag man daanaka xamante wu ma moom lu yàgg te am na ay mbir yoo xam ne maa ngi koy gis ci kër gi mais maa ngi koy suspecté di ko bàyyi xel. Mm. te réew mi dafa doywaar am na ñoo xam ne ay pédophiles lañu ñii mooy ñi nga xam ne ñii dañoo bëgg gone. comprendre te vraiment man am na loo xam ne maa ngi commencé di ko travailler sama xel parce que nag maa ngi ne jàkk di xool waaye maa ngi bàyyi xel damay xalaat ni Ngoné Mbaye ni mu jëlee almaam yi nii taf ko ci boppam ce que du ñooñu xam ne eh, eh, eh, maa ngi wax fa. bul yeggali laa wax. yow Ngoné Mbaye ngay wax. waaw. kii moo gën a leer ndox. kan moo moo gën a leer ndox. mu gën jël xale bi une trois mu jàpp ci mbaggu xale bi dugal ko ci néeg bi boo waxee mu ni dama doon dialogue dama doon waxtaan ah, jël xale bi di ko faj ci néeg bi ah, bañ na ko ba léegi xale bi nanguwul mu tëdd ci góor ñi da koy jël dugal ko ci néeg bi tëdd ak moom. waaw man ah, waraluma non mais dañuy waxtaan am na loo xam ne nii. toog ci der di jëw yàpp yow ki ngay waxal xam nga sama lan la. xam koo tax ma la ci njëkk a teraanga. Ngoné di def te yàlla tax. Ibou Ndip xoola na njëkk tey na mujj tey nga may woo sayu ñàkk fayda yi dégg nga su lu ma la wax du dégg li ma la wax rawatina na ngóone mbaay waxuma benn ndànk laa la wax gis nga ko ku ko laal laal ma na njëkk tey na mujj tey nga may woo di ma say fi ñàkk fayda yi góoru jëwkat bi nga doon dénk naa bis ni ko tey maa dénk deru ngóone mbaay dénk naa la dara eh, eh, eh, wuy ma taxawal tapet nga yow eh kaay yow man ngay waxal ma wax nga may jokkar bi di ma joxoñ dangaa dégg ma wax. dama laa laaj kan mooy tàpp. est-ce que yow da ngaa dégg ma mel ni yow laay waxal. Ah. damaa wax sànni ku for yaa dama ne la nga xool ma man ci kaw ba ci suuf. waaw ndax man duróo naa la tàppet. doo tàppet. kon léegi lan la. wax man kay dama ne am na yoo xam ne rafetul ka koy wax di ma ko jëmale en tant que góor di ma jox kor di ma joxoñ. góor yow góor nga laa la laaj. boo doon góor dangay wax waxi góor. yaa ngi dégg. Hmm. boo doon góor dangay wax waxi góor. Ah. foofu laa yem ak yow. li ma la wax leer na naañ te bu beneen yoona a tee. du yaa ngi baatre rek loolu. yaa ngi xuntu rek maa ah. ngi ne yow. soof mi nga xam ci loolu lay dugg. man kaala maa ngi nga lool. nga ne. wóoy bari yaaw da laa doon a sànq ak Ibou Ndip. ak Ibou Ndip wax na. waaw. yaa fu ne moom. daa dem Maroc. daa dem Maroc. waaw. tàggoo xaw ma loolu nu ko mën a daree. yaa ngi la mën a nekkee ci kër gi nekk ak ay nit te buy dem du tàggu xam nga des fois tooke. day topp ñu xam nga tooke. tooke foog nga dem ba yegg pour wax nit ñi yem nga. mën nga dem ba Maroc ñu refoulé la dañuy refoulé léegi fépp ay Guinée léegi ñëpp dañuy refoulé. moo tax xam nga rek. yow baa waxoon na la li ngay def. ah waaw mun na ñàkk nag yëgoon naa ko di. yëgoon naa àndule. ah moom moo am possibilité dem rek xam man yoruma moom daa yor. loolu de bu doon góone waaye day foon dëgg yàlla. ah muy foon muy yéeg fu mu jëm ma xam nga xamal mu am may ma ca xarit noonu la de. Ah. bu ki amul kay keneen ki day jàpp ci li waaye bu dee njëgu benn la kay waaye kon mu dem rek ba beneen yoon. ba tey baax na. man loolu yëpp sax waxuma waaye yaaw moom nan la def ba dem man damaa bëgg a dem di comme ñëpp comme ma dem bi daa xew. da ut paas rek paas boo ko mën nga dem boo amee argent de poche tamit mën nga dem. Ah, waaw ay ñaata noonu. ah ça dépend rek à peu bi avion la aller retour ak pour kii euh, xaalis boo jëlee hôtel ak yooyu noonu rek. hôtel. Mhm. ah force rek foofu nga dem hôtel. ah bu dee am nga la neexee nga dem ci ñoom. Ah, xamul kenn comme Sénégal fii boo ñëwee doo am ku la dëkk nag yooyu sax. amul Sénégal pays de la la di Maroc na xaw ma pays lan mhm. ah, ay 2 millions wala 1 mën a dem. Rocky Daba ah, a dem ngi dem Maroc sii nag Dubaay ak fu ne. ah waaw boo amee mën ngaa dem mën ngaa am boo loo am dem moom réew moom loo am dem. loo am dem. yoo am dem de xanaa yow bëggoo man dama amagul bu ma amee dinaa de yàlla nga am kon dégg sama xarit nga yàlla nañ am ñu dem yàlla nañ am bu ñooy am damaa yow waaw ñun ñëpp ñu dem kay nañ am dégg loolu dina <laughs> ma dugal. Ah? Uh-huh. man kay du ma la dugal. Ah, ma bëgg a dugal kay ba lay dugal. <laughs> ko nangu di xam nga yaa ngi dem damaa dénk deram bi. waaw ah, lu ko di dama ko def ko daf ko dénkaane woon ci man nag. moo tax fi mu ne damaa xippi samay bët toog rek. takk sama ndig di xaar ko dénk na raxas ko ba mu set. maa ngi ko ah mais fii dañ lay cuq. xaritoo day dëggu de. ñu xool ndax dangay xool doo wax. du ma wax du ma ko def. kër yi ngeen li fi xew sax ma. kontaan naa ci yow. Mhm. kër gi nga may laaj kër gi loolu la ñuy waxtaanee kër gi ndax kër gi sunu kër a. bu dëgg. Ibou Ndi ko fi xew ak mbay chaque jour ak gel bi muy dugal Ibou Ndi dugg lu ci yoonam nekkul ngoon a bàyyi zone kër. maa xam nga moom Ibou Ndi boo day yàq ñëpp képp ku ko wër day yàq sa den bàyyi nga loolu. filifili la nga wax xale yi mag ñi di détourné xale yi. pér pédophile waaw kay loolu lay jiñ Ngoné Mbaye. Ibou ni ma def loolu. la ma ko yekk. doo ko wax. la ma naan da ngaa pànk. la ma ko yekk de. ba ñu ca dal dee. maa ko dem sax yow yow yow ku dem yow la. moom la yow dafa def lépp la. dinañ ko mës jiñ viol bi ndax man gis naa xale bi ne ci kër gi. muy muy muy def ak moom ay yëf. mais tey añ bi laa wax. laay ceeb keccax bi muut laay toog. la fan yi marché amul jën. ma ne naa toog sama ceebu keccax rek confirmé ko ba mu saf sàpp ak paañ ak yoxos ak tuufa. mais Rocky Daba. Hmm. xam nga yow bien boobu dangaa mun togg macha allah. dafa am ay jànq yoo xam ne toll nañ ni yow wala ñu toll ni man. te mënuñu wàññi loolu lan moo koy indi. Eh, erreur bu nga la ngi noonu rawatina na nga dem ba nekk ñu war laa mën a takk nga war a dem sëy jéeg moom mën na bañ a mën lépp. sax ndax leneen lu ne rek mën nañ la koo sëboon waaye togg kippi taaj tega sa jëkkër mu lekk xale yu góor yaa ngi dee ndax pat de mhm. danoo waxul rek ak restaurant fast wóor na yàlla ñu ngi dee pat saa yoo ñëwee soxna tegal la ak lee corne mhm. ba spaghetti corne ba fu moom xale yu góor yi moom bu doon sax ci yaram ba tey sax na man de su doon may nit ñi dinañ xoolaat bu baax corne ba fi ñuy lekk ndax yow gis nga li nga xamante ni mooy corne ba yàpp bañ koy defaree dara wóoru ci. dara wóoru ci léegi lan ngay wax ci jéeg ji nga xamante ne nii togg njaaloo lañuy def togg njaaloo mooy teg sa cin gën dem nekk sa yeneen. di waxtaan di waxtaan ba fàtte cin la. loolu lan ngay wax jéeg ji nga xam ne ñu ngi sëy tey doxalee noonu. seen togg dina sa xorom bu baax. rësu ba dina xam ndax boo rësee dangaa war a toog la ko. ba ñurug ba jot nga ñurug ko mm-hmm. waaye bu dee fa ñurug waree du la fa fekk mm-hmm. yaa nga ca débat ba mm-hmm. fa sóor waree du la fa fekk yaa nga ca débat ba doo am sa ñeex boo sóoree ndax balaa ngaa ñëw cin la daal li ma jaaxal jéeg bu sëy na la war a mel ndax jéeg bu sëy xam na jéeg ji moom kenn xamatul ndax dañuy sëy kenn xamatul ndax dañuy foo mënuñuy def buñ ko dee waxtaan duñ fi jub xamal sama waañ bële

pacax pacaxi la ko dóori. pacax pacaxi maa ngi nii rek waa mais faaw. jaar naa la liggéey wax gis nga de pacax rek. maa ngi nii génnoon xam nga lijjanti ay yëf ak yooyu. yaa maa ngi lijjanti maa ngi ci ay bagage yoo xam ne xam nga yi ci laa nekk quoi. lijjanti ay yëf. waaw pacax. lii kat. daal laa nekkal ci néeg bi di cause ak moom. ci ñëwee ak ay ay ay kër di ko ay kër yu bari benn appel bu am ay kër yu bëri faram. léegi. léegi nga jéem jëndee góor. léegi léegi mu de saaga génnee ko gàlle bi. yow yaa def loolu. waaw yow fii du ma ragal de. mais yow ragal nga. nan laa nekkee tapet moo tax yow nga gis ay kër yi kay woo nga koy bàyyi. non mais man yow problème bi mooy ci sa booy jigéen yi am xaalis yi. Hmm? dañuy jàpp ni seen seen xaalis bu fekkee. Euh, Mbaye raabu ko. mu ko bëgg a takk. léegi da ko bàyyi. bàyyi naa mais yow bëggante bi ma la yow lan ngay bëggante yow waxu da bëgg yaaw teg mele yow booy boobu doo ko mbaraan. Hmm. gis nga ni ay euro la yor nga ko def sa down liggéey sa bopp. ci laa nekk nii yow nga nekk di waaye di ay da kër kay woo. ma na ko jëkkëram sa yoo nekku ci. loo bëgg ko. mbaraan ko. waaw yow damay yab. booy yooyu noonu c'est luñ bëgg dañ koy am góor guñ bëgg dañ koy am. donc man doxewu ma noonu de soit man rek walla mu bàyyi man ay mbëggeelu kii ay man rek moo fi jeex dama ne la nga jënd sa bopp ci booy bi keroog bi mu fi ñëwee gis nga lim ñu may un million lu teg lépp ci ay euro loolu gën a tuuti waaw léegi jëndal na ma oto wóor jëndal benn quatre-quatre dem naa léegi ana ana booy bi waaye yow bàyyi nga ko nga Marina booy bi wax naa la ay farama ko doon ay kër a ko woo mën naa tëdd ak moom di sees fii ay kër di ko woo ma tëbal ko man du ma nga récupérer booy bi jël ci moom li nga war a jël ci moom nga dund ci ma dund ci keneen ak keneen dund ci waa kër gi dund ci xam nga ba ko ah. booy bi nag bana la ndax maa ko seen bi may gunge keroog yaaw ma ni la seen naa ko bi may gunge yaaw aéroport boo jaawale kooku may lu ma ko wax loolu lay def lu ma ne ko bàyyi man leer na ma ne instant mi ngi këram tëdd di woon lii ko ba xam di nga ko jot nee naa la maa ko gis aéroport ki ma gis lii que la bi muy yaaw. lii su ma ko woowee fi mu sone mu jël après day jàpp ne maa bëgg a ay jubóog yooyu. wala lii que. waaye yow jubóog ak moom de. di nga jubóog lii que force. ma jubóog loolu force lay doon. boo liggéey boo jubóowut lii que man liggéey yow topp lii waaw. toll na la foofu. ah wéro bëri na bëgg nga xaalis. daa neex non non lii day bàyyi faram. génn ak man du am kenn. nee naa la du bàyyi faram mbaraanal lii que waxuma la nga bëgg ko de dama ne la nga mbaraan lii di woo ay liika pour jubóog moom yi nekk mu ci. waaye woo liika waaye dañu songoo de woo liika. pare naa man jubóo maag liika de. di nga jubóog liika woo liika di ngeen jubóo. jubóo maag liika de. di nga jubóog maag jubóo maag liika. waaw baax na comme sot naa neex. jubóo maag liika sama teraanga nga ma bëgg a xëy da ngaa soxla. yaa ngi yaa waaye su dama koy gën a bàyyi. loolu. Hmm, nee la doo ko jot aéroport la ak seen. teel a taxawal. sa jaawale wu ma ni ma. ba doo jot liika. luy loolu. doo ko jot doo ko jot. Désolé, la personne que vous avez appelée est indisponible. samay wax dee ko jàpp. Désolé, mais la personne que vous avez appelée est indisponible. Veuillez laisser un message ko message ko. message pour la am lii ka. naa la gis naa ko aéroport nga ne an lii ka xam nga kon lii bana la yow yaa bàyyi lii ka far bàyyi la. affaire léegi day tourné noonu lay demee day xuloo nit di ko bàyyi moom mooy ëlbatiku situation bi bàyyi ma fu lii ko mën a nekk ci àdduna lijjanti ko ba teg ko bët ko ci kër gi teg ko say loxo maîtriser mën na nekk wala mu nekk. aéroport lii ndox. dama mu diri valise. ay dee bi léegi kenn moom ñëppay dem. nante nalaw na tey de. yaa mbaa na la. ana yaa. nii daa neex. AIBD delivery. ñoom ñaar ñëpp dem la first yàq nga fi mu ne ñàkk nga kii ñàkk kay lu ko fi jar. mais ñoom seen waxtaan bi ñu jëlante woon keroog ci waañ bi lan la woon lan lañ doon wax. booy yow ya booy amaloo ci kenn njëriñ da bëgg di leen boole. di doxaan de gauche à droite bu nit ñi maaree dañuy daw bàyyi la te buñ la bàyyi du sa arrangement lii que dem man moo ma gën a métti yaa sax garaaw mën naa ko maîtriser après day ñëwaat mais ku mel ni lii que foo jëlee te. mais liñ voyagé ndoo tamit dafa la problème ñoom dafa yaakaaroon dañoo ma def kaa tuuti mais je pense pas que ñu ànd nag xëy na daa tombé te tombé moo waral ay gaaf. mais man kon aw ma kenn koo xam ne mën naa koo jël ci kër gi. yaa dina ñëw en attendant fii ma mënagoo fi jël kenn. kaay mu jël la. kan. yow yaa ni ngay yow may yow ni ngay dundee man noonu laa dundee. mooy la yow da ngay wër di naxe. yow man damay naxe mënuñoo ànd. Hmm. du dëgg looy ut loo def sa poos mu ut lu ma def sama poche. Hmm. noonu la demee maa ngi mënuñoo ànd mbay. Hmm. danga may nax wala ma lay nax rek te bu boobaa man maa ngi teg dégg. ah amoo waat lii ko ba ko jot.

réew mi léegi rokki mi rokki na amul suma bàyyi noonu ay waay nañ naxante nañ jàppalante fii métti moo fi jeex kenn métteetul sa affaire yi ngay dund moo fi jeex. jeex na bi kay maa ngi koy bu ñëwee teg ko ci code teg ko ci axe. mais man Ibou moom Ibou moo ne moom bu day yomb. Ibou Ndim yow yaa jàpp Ibou Ndim mais Ibou Ndim jàpp la. Ibou Ndim gel boo fi bàyyi bu boo wàccee mu mu dem jël gel. Ibou ci lii laa koy reyee man mu ngi man ci laa koy reyee man ci laa koy reyee ndax dama koy pasal. Ibou de bu dee lii kat am na ay parole yu mu sànni ci sama digganteeg lii kat gii nii ndax Ibou moo ne ma bu ko woo day yomb Ibou moo ne ma booy boo leen defee ni day yomb ko sàggan ko ko lii na boo ko sàgganee ndim dina jël te bu boobaa dama lay bàyyi dem ci ndim man intérêt laay doxee ak yéen. boobaa yaa ngi dem ci ku dootul dund. waaw bu yeboo man man boo amul dem ànd ak ki am. yaa ngi ànd ak néew. Hmm. waaw moom dafa am leneen loo xam ne néew ko mooy moom dee dee na moom. réew mi fan yi toj na hum mm-hmm. ku mm-hmm. la joti réew mi mari na fi nga toog information yi nekk ci réew mi yëpp yaa ko moom kaala viol bi pédophilie bi rayante bi yàmbaaj mbaa ñu bëgg a légaliser réew mi fu ñu jëm waaw mais parce que ci rayante googu noonu sax ci rayante googu léegi pour liika bi après ma woo lii après nga lijjanti ko. d' accord coaché ko teg ko sa loxo lijjanti euro yi. boo ko deful dama lay ray. <laughs> gis nga keroog li ma fi mbëkkee yow ay euro yow dama lay faat sa bakkan laa jël bi dina mel ni kon maag yow. Ah, dinañ dem kës fu ne dinañ fa dem. ah daa ju boobu lijjanti lii kat. naa ko woo naa ko woo sama fils mi. jaajëf <laughs> ñu ngi ana Maysa. Maysa. Hmm. soo tey ko de est-ce que laalu AIDB. Eh, luy loolu. maa da nga réewante de AIDB daa xew ci kër gi de maa ngi nga lool. mbaaru lii kat daa dugg ci kër gi xuloog man di defante jël xale yëpp yóbbu Maroc yow. Hmm, soo demee de saytu loolu. ana sa AIBD. loolu moom nag may seet naa ko vérifier léegi bu nekkee daa dem AIBD. nga defaral ma sama valise nga jël say valise demee ah, parce que bon tam xam nga lenn xaw naa ko ci dute. Mm. soo demee yow la ñuy complot Maroc pour bu ñëwee faat la daaw nga lijjanti loolu. maa ngi dem Maroc de ah, ma xool bu dee may sa nekkul ci néeg bi damay dem AIBD. sa der bi dañ kaa woo ko demal. teel ma sama ma ñëw. Mm-hmm, mm-hmm. Marina dénk naa sama der bi ma xool sa ci néegam. naa la ko bu wér. <laughs> kii la koy dal sax gisagu ko dafa mel ni ginax. lii de moo lay dimbali. waaw moo laaloon AIBD su ma. Hmm. luy AIBD. mooy benn aéroport. Zale bi. Zale Diagne bi waaw. ah ñëpp dem nañ ci. kan ak kan. na Maroc. Anta dem na. kañ. Anta dem na Maroc de. kañ Marina bi mu ko yóbbu nag nee na dajanaat lii ka. mooy sa gel bi fi doon ñëw.

kii yaa fi bàyyi daal fi mu toll nii instant yoruma. mais yow sa xànj gi nga doon def ci kër gi yëpp nekkete yow. lii ka la de. mais léegi loolu doon man gis di ko ma lay bàyyi. man damaa juum. Eh, ko nopp. Ah? xaw ma sax. ma dee ci loolu nga ah, ko de banaa la. waaw man bu dee loolu. xale bi dem na Morog de est dina ñëwaat. waaw après naa ko woo de man maa ne ko mu génn gaale beeg yooyu. mais yow man au moins indi naa fi lii que bu may waxee léegi loo bëgg foofu. ah monsieur góor yi ñëw soo nekk si. lu may day am far. am gel au moins. ma far. fee ñëw de. mais mën na bañ a ñëw ci kër gi man ma koy fekki. yow doo génn yow may sa yow moom fii nii quatre murs yi nii fi ngay nekk après nga lekk ñëw dugg ci duus bi génnaat tëdd sa kaw yow yow yow ku la wax léegi sama nekk fi sama far nekk fi nekkul fan nekkul Sénégal fu ne mu ngi Europe waaw mais lan mooy problème mu Europe ak senegal lan moo tax léegi léegi léegi léegi léegi ñun léegi borom doole yi léegi bu fekkee ñoom ñoo leen di jël yéen hmm. ñun ñan ñun ñan ñoo leen ñan ñoo ñan ñun ñan nan lañu def ba jël leen dërëm ak ñoo mën a ànd yow man warum mënuma laa doxal parce que. yow amoo loo lekk amoo loo naan. te léegi pour ngeen pour nit doxal leen il faut mu yor leen. waaw cas social laay bañ. ok donc kon dem Maroc bi léegi logique na. dem Maroc bi yi ngeen di dem Maroc di voyager def yooyu loolu donc lu logique la. lu logique la kay. waaw ah, donc lu leen ci dal tamit ngeen xam ne loolu moo leen ci dal. ah non non mais am na ci ñoo xam tamit bu ñu demee peut-être am na leen lu leen fa yóbbu. dañ dem pour liggéey wala dem pour jënd marchandise. Hmm. am ñoo xam ne dañ dem seen far yee leen fa woo. yow comme sa far bi xam mi ngi Europe. Hmm. maanaam bu fekkoon yow laa yónnee paas pour nga fekk ci wala ngay dem. man damay dem kay. <laughs> Ah, <laughs> loolu laay def. mais bu la paasee lee ñaar yi lay dëkk. ñuy dëkk. ça hmm, dépend rek. bu ma fontoo waaye yow. bu la neexee nga dëkk ak moom bu la neexee nga dem jël sa appartement boo xëyee fajar ngeen toog yenn journée bi yëpp pare mu sa maa du hmm. ñëw man. nga ñëw ci man nga ne ma dama lay jël appartement. mën nañ bokk kër gi waaye bu tëdd jotee da tëdd sa xaar ba. kan mooy fekkee loolu kuy fekkee loolu. xaw ma yi ngay def nii ba seen caaxaan yi ngeen nekkee nii man damaa bëgg ngay xàppi yow gisoo ma jël la ah. nii ndax gisuma ma jël la. Hmm, yow loolu de sa woon mbaay. mais jël nga yow dëkk bi yëpp jël nga réer yow kañ nga bàyyi waaw yaa yaa seen i bàyyi da kañ yaa noboon nga ko noboo ko woon. Eh, lan moo dugaloon ci moom. yow des fois nga nopp nga nekk góor te doo ko nopp. damay laaj lan moo dugaloon ci yaaw. waaw ah, mais comme comme yow ni nga koy defee ci man man man du génn ku ma nobu. yow koo génne na xol nga am. Hmm, génn maa ma fontoo. yaa rek. dama gis loolu. yaa ngi ni yow am mille far nga yow koo nobul doo génn moom may sax yow man lu mu gàtt gàtt xamal naa la onze. kii moo ñeme limal benn ma tudd limal benn tudd tudd tudd tudd tudd. barki <laughs> xamal de wax fii léegi lay def àdduna yëpp xamal la fii ci néeg bi lañ nekk mën a yow di wax mais suñu wax di fi mu toll àdduna yëpp a koy. waaw xam nga la man ah, la da ngay ñëw ñu génn bu lii mu neex nga ak kër gi yëpp ñëpp mën nañoo bañ a xam ne mën ah, parce que damaa perte. damaa perte yow fi mu ne nii jamono ji sax lu ma fay sama néeg bi problème la ci may dong. dong mën naa la ko may génne non du ci circonstance yi kay. heure fay bu jotee da nga koy fay. ah. boo d'accord ñu génn man ak yow bu weer bi dee man chaque fin de mois mën naa yem ci ñu ñaar. ah génn daal mooy tax nga fay ko mais bu doo fay. doo fay yaay xool nag sinon yow nga dem lijjanti ji ko sax ci àll bi naa la may temps tam nga de réfléchir mais boo may tontu nag ma jël Elisabeth nga waxtaan ak man wax ma ni ma nangu nga dund ni ñuy dund ci suuf loolu am na fépp. amul dund suuf man may dund damay dund kaw ñëpp. après nga yàqal. yàq yow li tax ma lay fay. yow fi mu nii lii ka dem na mënatoo ko jot wala yow gëmloo loolu yow di nga am ku mel ni lii ka di ko fooyee. lii ka mi c'est que mu nekk de. désolé mais la personne que vous avez appelée est indisponible. veuillez laisser un message après le bip sonore. léegi Malam Mbaye boo jotee sama message nga rappelé. bu ko woo bu ko woo. mu lay dee. nan la ñuy nan la ñuy supprimer message vocal bëggagul. dem na yàgg na jàll na. fi ne nii moom booy coupé message bi dem ci moom. ma bañ a coupé. kon ba ko nii muy dégg li ñuy wax. su ma dindee puce bi. di di fexeel ba ubbi Samsung bi rek yow. waaye léegi ba na maa ngi dem ba koy jaaroon doon la rek. mën nga réfléchir ah ci li ma yaay xool rek. man lépp kon naa ma say dina doyal lan la ngay doxal. sama nelaw doyul ci jamono jii.

Ibu Ndim loxoom dañu tilim. mais maa yegg ni ñaar ñooñu dem nañu mari naa ne mu dem. te lii ka moom àttan na yónnee bii Ibu Ndim daal xam moom loolu nekkee ci kër gi moom kooku moom gerte boo fi indi mu ropat ko. bu kañ ngay dem amaa yaa ci yoon man daw ma. kañ ngay dem boo da ngeen may ma dem daw ma kañ ngay dem. ma passeport eh, bi daal ngeen jëlanteel yéen. déggoo li ma la man daw ma aw ma carte yow de joo xool yow fi léegi fii laay fanaan ci buntu léegi bu soobee yàlla bu dee guddi la doo de bu dee bëccëg doo dem léegi chaise laay dem jël ci saal ko sa buntu ah, léegi yow yëpp bu ñu des ci kër bi nga man ma des ci kër bi bu ah. ah, <laughs> mën nañ fee des ñaar man desante maa ngi ci kër gi hmm. damay gàddu samay bagage dem dem far aussi ci feneen fu ma dëkk kër kat sa yoon nekk ci loolu bàyyi leen dëkk seen kër fari lii maa ngi dégganteeg moom lii ka meen mi sama liiga sa liiga déggante comme la eh, nee na dafa bëgg yónnee bi ma ñëw foofu kon léegi yóbbul yaaw nga yaakaar ah, ah, ah moom ni lay avancé woo kër gi la bëgg yóbbu bàyyi ma moom kese ragal naa yaa kër gi moo des fi mu ne nii la ko léegi man mu ngi ñëw dem ki sant Diop ki nekk ci waaye bi nu mu tudd nu yow laa xal waaw ok na neex ma laas xiiram yow. kii la kii la